yónnee woo sax day jàpp ne yaa ngi fi ndax loolu nii la yoon wi doxee ne ku la xam ku ne itam gis na ni ngay doxaleeg say kilifa nee na kon ñoom itam nee na looloo leen war seen digganteeg yow nee na li leen boole bari na lool Mbakke te lépp nag di Serigne Touba. ni ko magam ju baax ja daan waxee sëriñ Muudu moom sëñ Abdou Khadir da daan wax ne néeg bu yaatoo bari bunt néeg bi nag benn mooy kër sëriñ tubaa bunt yëpp nag ci kër sëriñ Touba la jëm ne lool yi mooy li jiitu te mooy lépp solo li leen boole yéen ñaar muy Cheikh Mamadou Fadal ne lim doon ci moom nee na sëñ Abdul Karim mii xam na ko am na ci loo xam ne sax mu ne su ko wax waaye waaye magam ju jigéen jim bokkal ndey kim jëkkaam Cheikh Mamadou Fadal mooy woy juróom nee na feeñam ci kaw suuf itam ci moom la sababoo ci lim ci mën a leeral ci Cheikh Mamadou Fadal nee na kon li mu doon ci moom daa bari ne way juru sëñ bi itam yàlla def digganteem ak juróom juram ñu jaxasoo woon lool muy soxna may galas soxna may galas waxtu ne daan na ko fàttali ndax digganteem sa sëñ Abdou ku ne xam na ko da koo bëgg ba nee na ñoom ñi sax moo leen ko gën a bëgg nee na sëñ Abdou Khadir ku nga xam ne njabootu sëñ Fallou gi ñi ci yëpp daanaka moo leen tudd waaye yemutoon ci tudd gi ndax Serigne Mouhamadou Faral moom la leen féetale woon moo ko doyoon tam ci ñoom dana ci nettali loo xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Fallou lu moo ko nettali nee na ci mujj gi nee na bi sëñ bi demee ba mel ne ci cat li daal nee na docteur bi da ko xool xool ko ba noppi ne ko dara jotu la xanaa ak mat ne ko leen rek laa gis ne warees na la ko dolli nee na warees naa dolli sa deret ndax maga gi nee na sëñ Fallou sama deret ji nee na sëñ Fallou daal ni ko sama deret jii nga bëgg ma soppi ko. daal ni ko xanaa ju Abdou Khadir oh. nee na ku toog sëñ Baara dégg nga loolu ci moom. nee na loolu seen diggante. xóot na xóotaay boo xam ne. mu ne su ko wax ci rajo. nee na bi fi sëñ Fallou bàyyi ko itam. nee na yéen ñi ñëpp. moo doonoon seen kilifa di seen way wayjur way wayjuru sëriñ bii nag amoon ci seex ba basiru mi ak cofeel lool cofeel goo xam ne daa yàgg sax waaye amutoon ci moom sago nee na soxna may galas itam moo ngi koy sant bu baax ndax ba yàlla boole ba léegi nee na day mel ni soldaar ci kanamu sëriñ bi rek nit cofeelu ko bëgg nanguwut a dégg ci sëñ ju dara fu mu déggee lu jëm ci moom tam dana ko jaral lu ne rek dana jaral na ko bakkanam daanaka ci loo xam ne mënee su ko wax nee na kon Mbàkke ñu ngi lay yóbbul ak cant ci moom nee bi fi soxna si bàyyi ko wuy juróom bu jigéen bis bu yàlla sàkk moo fi jëkk moo fi mujj ba lu yàgg-yàgg taxawaayam ci moom desul desul ci dara nee na kon sëñ bi loolu mi wax rek loole li leen boole nee na yow mi nag sunu boroom du juum lépp loo gis mu defar ko nit rek am na lu tax te Serigne Touba defar na la cër Cheikh Mamadou Fadal defal na la cër. loo xam ne àdduna sépp xam nañ ko nee te ko nag loolu yi mooy li ci gën a yéeme Mbàkke ndax doomu aadama daa gaaw a gis boppam waaye yow gisoo sa bopp moo tax sunu boroom di la dolli rek Mbàkke nee na cër bi mu la defal àdduna sépp sopp la ñëpp bëgg la gisoo ci dara yaa ngi woyofal sa bopp nanguwoo feeñ ci dara nanguwoo wax ci dara jëlale na sax ki fi nekkal sëñ Tuubaa waaye ki fi nekkal sëñ Fàllu sax ñeme nanguwoo feeñ ci kanam ak sa kilifa yëpp ne loolu ab cër la boo xam ni yombut moo tax yàlla lii mu la defal Cheikh Mamadou Fadal defal la ko Serigne Touba defal la ko Mbàkke day yokk waaye du wàññi ko mukk ne lu koy gën a sàmm suñ borom def na ko ci yow mooy jikko ju rafet ndax yow sëñ Galas Jatara mi nee na barki démb àjjuma rek waxtaan nañ ci ñoom ñaar bi mu koy nettali loolu bi ma koy nettali loolu nee na mu yéemu ci lool fekk na man mii waxoon naa ko ko mu wax Galas Jatara ne ko ne ko sëriñ bi li ma gën a yéem ci moom. li ñuy wax salimul xal bi moom yàlla da koo defal mooy xol bu amut keñaan te ñi ko miin ñëpp tam wax nañ ne ab jataayam deesu fa tudd kenn loolu nag dara ëpp ko solo nee ba ca des itam nee sa yërmande ci nit ñi mbàkke waaye neen lool du kéemaan nag nee na loolu da nga koo jëlee ci Serigne Fallou nag ndax Serigne Fallou yërmandeem boo ko doon natt doo xam fu mu àgg. Pastef bii nga am itam. doomi sëñ Fallou bu amut Pastef loolu mooy jaaxal nit ñi ndax Cheikh Mahmoud Fadal bëgg sëriñ Touba ak jeex ci sëñ Touba ak ña nanguwut a feeñ ci lu dul Serigne bi loolu la ko Serigne bi fayewaat rek Mbacke sañ bi nee mi ngi lay sant bu baax nee na mi ngi lay gërëm. ne lii ngay liggéeyal sëñ Touba ci nit ñi nee na déggoon na ci Serigne Saliou kat mu wax ne Serigne Touba yaari mbir la wax benn bi dana digal na ko Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadil ne kon nag mu wax ne mel na ne ñun ñi tàbbi nañ ci biir waaye yéen itam tàbbi ngeen ci biir waaye ne loolu du lu ñuy mën a nettal ci mbooloo. mais bi ci des it ci làmmiñam la ko déggee ci Serigne Saliou mu wax ne Serigne Touba daa waxoon Cheikh Modou Moustapha ak Cheikh Modou Fadel ne leen li ma leen fa fàggul mooy ku ci dund am barke ku ci faatu tab tabbi àjjana te kenn du lay sàpp waaye li leen fi taxane ci àdduna waaye li leen fi ci àdduna nag. duma ko fàggul kenn ndax àdduna jarul ma fàggul kenn wax koy seeni jaamu yàlla li ci ëpp solo ginnaaw yi suñu borom farataal mooy lu ngeen gën a jaxasoog nit ñi gën a jëflanteeg ñoom gën a dékku seeni métti métti gën a dékku seeni métti moo ëpp seen ci seen jaamu yàlla nee na kon kenn pëlewul ci Mbàkke ci ngay xëy ci ngay gont nee na sëñ Galas Jatara mi nettali na ko muy li kéemaane nee na sëñ bi ne boo gisee mu defal këram gi nee na jubluwu ci bëgg àdduna de ne daa bëgg fu nit jógee rek xa fu nit jógee ci àdduna xam sëñ Tuubaa xam li leen sëñ Tuubaa defal loolu yi nag sëriñ Modou Moustapha da koo ma sa soxna may ne ko may muna ne ko fu ngeen ne jotaay bu ngeen ne na ngeen ko defar ba ku ñëw ci yéen xemmem sëriñ Touba waaye bu leen ko def ngir àdduna gi def leen ko ngir wane sëriñ Touba wun Mbàkke nee na li ngay def loolu nga ci jublu nee na kon moom jëmmi boppam itam yéene ji mu am nga am ci moom ak cofeel gi ak yërmande ji ak fonkel gi nee na moom ump ko xam na ko bu baax Mbàkke waaye xam na nag ak jàppaleem ci moom nee na ci lépp nag dara desu ci Mbàkke nee na foo war a féete fi moom rek nee na soxlawul nga yëg ko sax nee na da koy def ngir gëm-gëm def ko ngir sëñ Touba def ko ngir yoon wi neena na mi ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba sunu borom yàlla na la gën a dëgëral. gën laa kàttanal nga yàgg faj aajo nit ñi ci yow itam nee na sëñ Tuubaa waxoon na ko itam nee woon na nee si Abdoulaye Mbacke waxoon na ne sëñ Tuubaa nee woon na seenub liggéey de la ca ëpp bokk na ca na ngeen fexe ba nit ñi seenum xel di dem ci yéen di dal di dal ci yéen seen yaakaar bu mu tas. nekkoon nag loolu doomi Serigne Mamadou Fall bu mel noonu xanaa ko xamut lay jaaxal waaye ku xam moom da nga xam ne doomi Serigne Fallou nii rek la wala mel yërmande ak tabe ak oyof ci nit ñi ak ubbil ñëpp amu ci xejj ak seen Cheikh Abdou Khadre Mbacke danaa wax ne Serigne Fallou li ko gën a yéem ci ay waxam. mooy ne mooy ñaari baat yim daan wax nee na yaara nu fi bàyyi xaj ak xajo lu ci waay indi waale ci tilim ñu xajal la ko ci ba mu set lu fi waay indiwaale ci ay ayib itam ñu xajoo la ko. li Cheikh Bass wax ci euh, féetale gi leen sëñ Fallou féetale woon ñoom moom njabootam gi féetale gi mu leen féetale woon sëñ Abdoul Khadir. nee na loolu tax na bind na kaamil boo xam ne ma nga libi nee na kaamil bi ma ko bindee ba jox ko sañ Maxtaar Aminta Njaay mu topp ko ci Gédé sëriñ Abdul Xaadir laayut kaamil bi sëñ Abdul Xaadir bind ci kaamil bi mbind moomee mu ci bind ba ma génnee dama ko photocopie nee na li sëñ Abdou Khadre bind ma yëy ko ma bàyyi photocopie bi ci mbind waaye bi ma génnee daal damaa photocopie mbind bi mbind mi nga xam ne moo jógee ci loxo sëñ Abdou directement nag nee na moom daal koy jëfandikoo nee na lii moom duma ko bàyyi mu ànd bi ndax xamu fa téere bi na ma jël loolu yëy ko wann ko nee na photocopie bi nag ma boole ko téere bi waaye loolu neena mooy cër bi sëriñ Fall doxante doxalanteeg diggante suñu sa waajur wa ñu daan ko doxal ñoom ñaar ñu ñeneen njaboot sëriñ Fall gépp daan ko doxal. nee na man de ñaare mosuma dem kër sëriñ bi xaar siyaare ko te dajewuma faa kenn ci waa kër sëriñ Fall yi faaw rek du ngeen yëgoo waaye faaw nga tase fa kenn muy siyaare si ni yow. fa dajal tey. te koo fa dajal tey bu ëllëgee keneen nga fay dajal. nga xam ne ñëpp bindoo woon noonu ci ndigal li seen bàyyi joxoon seen digg digg seen diggal Seydou Khadir. Seydou Khadir boo ma a toog di ko xool képp sa xol day sedd boo amee njàqare sax wala tiitaange sax day dem ndax jëmm Seydou Khadir moom meloon noonu. nee na jëmmi sëñ Abdou Khadir daan dàq ay njàqare day daq njàqare di dàq tiis loolu jógu fi de mi ngi fi ba tey mu ngi fi ba tey nee na yéen a ngi koy doxal bu baax